réer ci euh, li nga xamante ni euh, moom mooy euh, ay patrouille yoo xamante noonu lañ ko daal di amal loolu la bés bi le jour daal di xëy daal di def ci xëtam bu njëkk. Mhm. ñu jàll ci beneen ñu jàll ci beneen beneen journal. <laughs> ah waaye yow nag yow kii na na nabu koo ñibbi si <laughs> na nabu koo ñibbi si jë jëkkëram ji nekk fii nam na ko kii mi ngi mi ngi jax sëpitaal yi dafa daal di xëy wax ci mbirum parrainage yi l' opposition accuse <laughs> ëppale woon ni ñenn ñi xamante ni si opposition lañu la ñu fare woon ginnaaw bi nga xamante dañuy darakale daal di nañuy xëy daal di koy eh, jiiñ ñi nga xamante ni moom mooy eh, lii di eh, gouvernement bi donc mel ni sax Aminata Touré daal di mm-hmm. nay wax ni moom Euh, ki nga xamante ni moom mooy conseil constitutionnel daf ko daal di fay li nga xamante moom la liggéey ci troisième mandat wu Macky Sall. effectivement xamle moom mi comme li nga doon wax sànq rek ñeel euh, jamono ji euh, ñoom opposition bi dañoo am dañoo def ab plainte maanaam opposition mais ñi jàllul peut-être mën nañ ko tuddee ñi jàllul ci ñi nga xamante ñooy parrainage bi ëpp na ñeen foofu dañoo daal di lëkkaloo def ab plainte li nga xamante ni mooy les sept sages. ñoo yee mhm. plainte kay ñoom kat li leen dal dafa métti na wax dëgg yàlla liggéey boo xamante ne da koy liggéey jaar mën ngaa bàyyi reetaan bi wala liggéey boo xamante ne liggéey pendant durée bu toll noonu nga yegg si ba fii ñu ne la yow li nga liggéey zéro doo jàll mhm. loolu dafa naqari xol di Aminata mhm. Touré wax na dëgg maa ngi ko doon wax sànq ne la parfois danga naan sax xanaa li ma leble rek loolu dama yàlla di fay moo tax àdduna lu waaye di leble na doon lu baax génnewuñu ah, ko ko nag wax dëgg yàlla waaw yéenewuñu ko ko moo ñëw karma nit xam nga karma ni ko xale di mm-hmm. waxee ci akaa nga ah, karma is the key noonu <laughs> mënu ma ko ah. yeggali waaye yow xam nga li ma la bëgg a wax mu <laughs> ngi noonu maa ne àdduna looy leble rek na doon bu baax mm-hmm. badu jaara Aminata li ko daal yéenewuñu ko ko parce que après mm-hmm. gis nañu taxawaay bi mu am en tant que femme opposante mais avant qu'elle le soit opposante elle était du côté du pouvoir ci système bi la bokkoon donc aujourd'hui ce qui lui arrive naam yéenewuñu ko ko mais on a l'impression que c'est le retour du bâton Mhm, mhm, mhm. ñu jàll ci beneen ci beneen euh, euh, journal euh, muy 24 heures moom dafa daal di xëy wax ci Macky veut l'inventaire de son bilan social maanaam li nga xamante ni si ni jot na ko def ci 12 ans yi nga xamante ni si daal di na ko fi amal moom makki sàll loolu la daal di xëyee ci moom lii di 24 heures bu mën a jàll ci beneen journal. Badou Badou. may ma foofu may ma foofu maa la ko ñaan. may ko 24 heures maa la ko ma. di may ma indi foofu waaw kay may ma ko may ma ko mu ne dafa bëgg ñu wax ko inventaire social li fi jot a liggéey. Mhm. waaw kay ne ko ne ko as ne sonn nañu ci dëkkee cere ak meew. <laughs> Eh, mais cere dafa am vitamine de naan fonde dugub bay bëgg dee. ne ko askan wi sonn nañu ci lim ñu diggoon ne dafay wàññi njëgu daara de première nécessité yi te defu ci tous ñebe mooy butbuti gouvernement bi <laughs> wàññiwuñu ndef yi dafa gën a seer marché tey la gën a taal ne ko woyofal mu ñuy bëgg rey social la ba tey mm-hmm. tout léegi tuuti ñu faatu <laughs> woyofal kay daanaka moom diisal lañ ko war a mën a tuddee mm-hmm. nee ko nee ko wuy ma nee mm-hmm. am na ñoo xam ne seen facture courant seen facture ndox moo gën a cher téeméeri junni yoon seen facture courant nee ko sénégalais yi amatuñu trois repas par jour yow Badou yaa may dégg wala déggoo ma bokkuloo ci plan bi waaw nee ko sénégalais yi defatuñu ndekki añ reer loolu defatuñ ko léegi ci réew nit ñi amatuñ ko wax ko itam ne ko ah wax dëgg yàlla bu guddi jotee na génn xool sur le plan social boppu ko ñi table bu ne nga fa table sandwich table fonde table cere xale yi nee léegi sax boo jëndee trois cent franc cere benn kuddu bu mag la da ngay ñu si la nga dem. mag mami li gën a pire am Aminata nee na ma wax ko ni kaso yi fees na dëkk bi weet na ndaw ñi dee nañ ci. kaso yi fees na ci géej bi loolu mooy bilan social bilan social am itam bokk na ci immigration clandestine bi wax na mhm. dëgg yow Aminata mhm. wax na dëgg nga waxaale dëgg bat wax dëgg ñun ñëpp ñu wax dëgg ñu ni ñun sonn nañ dee nañ wetti nañ ñun dee na lottu nañu mhm. faatu fa yàllaahu yàggalil bat moo tax euh, ba tey euh, ci kii 24 euh, heures bu Birahim Seck daal na koy xamal ne ko au lieu que ngay attaqué li nga xamante ni moom mooy presse bi daal di ngay demandé Cour des comptes mu publier li nga xamante ni moom mooy rapport de 2018 et de 2022 loolu ko Birahim Seck daal di xamal. Mhm. président Macky Sall wax na ko dëgg. Hmm. Ah. wax na ko dëgg kay wax na ko dëgg. la gën mu xas yu ñun journaliste man xaw ma luñ la def. loolu tamit jaaxal na woon lan ko def li ngeen def Macky <laughs> defuñu ko daal ñu dem ci beneen Badara. ñu jàll ci beneen journal. Mhm. Euh, euh, critique encore euh, moom li mu wax mooy présidentielle 2024 encore 45 jours d'incertitude maanaam dese nañ ñeent fukki fan ak juróom yoo xamante ni si ni jamono jile Sénégal yi dañu nekk ci incertitude maanaam xamaguñu ki nga xamante ni moom mooy yor ëllëgu. Sénégal loolu la mhm. critique daal di xamle. Mhm, ñu jàll ci leneen. Euh, euh, laas laas yéenikaay euh, moom li mu xamle moom mooy plainte contre le conseil constitutionnel invalidé ñi nga xamante dañ leen invalidé ci parrainage ñoom ñoo amal mhm. boobulee plainte d'accord ñu jàll ci beneen quotidien concerton présidentiel 2024 yi ba tey ci lay wax ak mbirum ki nga xamante ni moom mooy Amadou Ba mu daal di bind moom concerto pour Amadou Ba la daal di def ci xëtam bu njëkk mhm. concerto maanaam concerto maanaam Amadou Ba concerto mooy la. demal lu concerto tamit. Oui, euh, euh, a conseillé euh, Moïse euh, euh Katumbo pour sa campagne en a été <laughs> maanaam concerto boobu. <laughs> waaw waaw waaw waaw waaw waaw comprendre naa <laughs> elle n'est pas sérieuse mm-hmm. quotidien ñu ci beneen euh, euh, euh, les échos moom le domicile mi ngi wax ci ndaw mi nga xamante ni ku am juróomi at la foofee ca kër Mbay Fall dafa ñàkk bakkanam ci mm-hmm. oto lañ ko daal di fekk mu ñàkk bakkanam ndiki askan ba nag dañu daal di wutali woon kër ki nga xamante ni moom moom moom boobeele oto waaye daal gendarmerie daf leen daal di interdire li nga xamante ni moom mooy mbir mi naroon a foofee ca kër Mbay Fall la effectivement mu nekkul lu metti Mamy Samb ñaari xale yi nga mm-hmm. xamante ni dañ leen fekk ci oto kenn kii ñàkk bakkanam ki ci des nag euh, euh, moom jot deewul mais euh, ba tey mi ngi mi ngi ci loxoy médecin yi ndax dafa xaw a mel ni ku traumatisé wu waaye ci loolee li ci gën a mooy que nii dafa am benn sëriñ je sepa bu nekk ca koñ ba. Mm-hmm. ci buntu këram la ñu fekk oto bi nga xamante ni foofu la xale yi nekkoon askan wa nag ñu ëpp ci ñoom dañoo commencé di dut baaraam tuuma kookule ba jot nañoo dugg këram. c'est que këram affaire yu yooyu yu ni mel léegi nag euh, jamono ji ñu toll nii enquête bi waxagul lu leer waaye man li ma ci jàpp rek mooy teel nañoo accusé teel nañoo def lu ni mel. ndax euh, euh, euh, kookee ñuy ñu dut baaraamu tuuma ñoom ci seen ay témoignages nee na nit ku baax la ba mu fa dëkkee ba tey social mësul am ak kenn problème te dafa yàggoon a bëgg ay xale mais daal bi problème bi amee. da mhm. fekk ñu fekk xale yi ci buntu këram rek dañoo commencé am xel mu ñaaw ba def loolee donc man li may jàpp nañu bàyyi mbir mi ci loxo yoon bu ko defee rek leeraange dina am ci loolee mais. teel na trop mhm. pour ñuy accuser kenn ne moo faat xale boobule. Euh, ba tey CAN 2023 centre de l'ouverture de la CAN Yamoussoukro accueille euh, euh, à bras ouverts les Lions maanaam gaynde yi ginnaaw seen wàccaay foofee ca Yamoussoukro daal di nañ leen fay amal benn accueil boo xamante ni si bo bu am am solo la muy Sadio Mané ak ay naataangoom. ñu jàll ci beneen. Eh, eh, eh, yow yow Badara booy wax ci Sadio Mané booy booy wax ci Sadio kii de ak kii de ak kii si njëkk de. Sadio dafa takk jabar bëgg boo njaay bu yeboo nag waaw waaw Sadio Sadio da doon linde miel linde miel linde miel bi sax jeexagul yaa ngi dégg. ak hmm. respecté te ba pare yow Badou ñoom dégg naa hôtel bi ñu daal foofu man man man maa laajte ay information ñu ne ak ñun ak Lion indomptable yi nekk Cameroun ñoo bokk benn hôtel. pour ndax waaw ñoo bokk benn hôtel loolu euh, gars yi waxoon nañ ko. Ah, ak ñu nag ko seen conférence de presse. Euh, xamaloon nañ ni euh, gaynde yi ak waa euh, Cameroun ñooy bokk benn oto. ah nañu maytu de nañu maytu de Cameroun yi dañoo mën ay xonde ay nañu maytu de bu ñu bu ñu awee fee nañ aw fee nañ leen sori di leen daan te dëkkee jàpp ndax Cameroun yi man man wóoluwuma leen. waaw Gambie aussi ñoom tamit li leen daal ah. métti na torop ci seen avion bi aussi. ba am ñu ci nga xamante ni jamono ji am ñu ngi ci loxoy médecin yi donc Amadou Baro tamit nan la ko loolu mën a dalee. non ah, xam nga rek xam nga doon toppandoo Sénégal yi nag parce que maa ngi dégg seen ay match yoo xamante ni si war nañ ko préparer joué wuñ ko et tout comme ça mu woo leen jox leen drapeau beeg yooyu noonu ñu sañse nañ ca. waaye lii Sénégal du Gambie nag ñun pauvre nag trop waaye ñoo nekk. <laughs> ñu dem ci beneen. <laughs> na leen bu leen jàppee Gambie. yàlla baax na yàlla na leen yàlla may ñoom tamit ñoom ñëpp ñu nekk si jàmm ñu a jàmmaarloo ak ñoom moom dafa daal di xëy wax ci li nga xamante ni moom mooy euh, oto yi panne ak accident yi nga xamante ni mi ngi am ci autoroute à bi mu wax ni plus de euh, euh, douze mille panne de véhicules et de mille accident dina am par an ci li nga xamante ni moom mooy autoroute à bi mm-hmm. ñu dem ci beneen le PSE en chiffre euh, li nga xamante ni moom mooy euh, euh, plan Sénégal émergent bu président Macky Sall boobee am na lu ci wax muy impact bi nga xamante ni am na ko ci li nga xamante ni si nii moom mooy fa moom mooy li nga xamante ni si PIB bi ñu ngi ko daal di estimer ci entre huit pour cent à onze pour cent par rapport à une situation sans le PSE le PIB par tête du Sénégal est passé de vingt mille euh, deux cent dix francs en deux mille quatorze à huit cent quarante cinq mille quatre cent cinquante francs en deux mille vingt trois Mamy. Mm-hmm. Mm-hmm. yàlla baax na waxi milliard rek nga ne da dégg rek pousse ñebe muy but buti yaa yokkute am na ci. ah parce que man Sénégal émergent émergent kay émergent mooy lu yokk yokkul kay dootu tuddati émergent ñu ah. <laughs> kay xanaa beneen tur lañ koy wutal. ñu dem ci beneen journal bismillah Euh, l' observateur euh, mi ngi xëy tamit wax ci li nga xamante ni moom mooy candidat yi jot a validé muy 21 candidats yoo xamante ni si nii daal nañu validé seen parrainage mu dese leen li nga xamante ni si moom mooy euh, dernier saut péril maanaam mu dese leen loo xamante ni si nii caytu gi les sept sages war a saytu seen ay dossier mhm. loo xamante ni si nii beneen phase la bu ñu war a daal di dundaat mooy ñi nga xamante ni mooy mhm. les 21 candidats yi validé seen mhm. lii di nga xamante ni moom mooy parrainage yi na de comme ni ma ko xewoon. ci suuf ci suuf ci suuf Badou ci suuf. ci suuf ci suuf le calvaire sans fin des. Euh, euh mhm. des époux euh, euh maanaam maanaam mooy jabar jabar bàndikat yi waaw lu ñu wax ñu wax foofu lu ñu fa luy soxla lii rek maanaam calvaire bi nga xamante ni si nii ñi seen jëkkër yi euh, di dund euh, li nga xamante ni si nii moom mooy mbaarum euh, alcool ñu ngi koy dund mooy soxna yi nga xamante ni si seen jëkkër yi dañuy utiliser alcool. xoolee ko ci lu ñu dund foofu parce boo xoolee kii mi ngi wax mu ne mon mari criait fort et publiquement qu'il avait envie de coucher avec moi. <laughs> yal nañu yàlla musal ci loolu. yal nañu yàlla musal ci. Mhm. alcool daal baaxul ah. Hmm. beneen eh, eh, beneen beneen monde la yooyu yóbbu Badou mii Badou ma ne nga ne ndaw si lu mu wax mu ne moo mari lan. <laughs> jaar du ko lire. nee na ma ma tekki la ko ci wolof. déedéet man li mu bind ci suuf paragraphe bu sew bi. dafa wax moom mari. kii bàyyi ma tekki la ko ci wolof rek. c'est fort et publiquement waa ñëwal jaara ñëwal. qu'il avait envie de coucher avec moi parce que dafa doon utiliser li nga xamante ni. bi nga xamante ni seen jëkkër yi di naan ñu ngi koy dund. Euh, témoignage bi nee na moom jafe-jafe bi mu ciy dund mooy que ni jëkkëram bu màndee ba pare day ñëw du yuuxu publiquement maanaam du yuuxu ci ci ci ci ci mbedd yi meek yeneen ñu mel que ni da soxla daal daa bëgga a waaw. ah waaye kii ko xoolaat na. xale <laughs> boo mandee tey mën tëddi <laughs> bul yàqal waaye kii neexul nag. <laughs> yàlla nu yàlla may sago sago. jaara ah, yàlla nu yàlla waay waaye yow damaa hmm. soxla sama jabar rek jar naa yuuxu ci potu làmp yi lii tamit lii du kaa. xam <laughs> hmm. nga woykat bi saan waa Medina sabaax daan hmm. nañ wax naan sàngara kenn du ko jaay doole sàngara baaxul. gis nga te am na ñoo xamante ne dañoo bëgg naan waaye mënuñu naan. am na ñoo xam ne naan ci boppam naan ci boppam daal naan daal naan daal bu yeesoo ndox ndox mu sell bi daal <laughs> naan daal naan daal jaaram naan ah yàlla baax yàlla soppi yàlla leen yàlla soppi kay mm-hmm. ah, te ay jàmbaar am na ci ñoo xamante ne seen jëkkër da leen di da leen di dóor dañ leen di brutaliser mm-hmm, physiquement mm-hmm, te après bu ñu bu dañuy regretter li nga xamante ne def nañ ko yëpp parce que état bi ñuy nekk moo tax sobriété daal baax na ci nit yal na ko mm. yàlla defal mooy sago gi sago gi waaw macha mm-hmm. allah. et puis ñu leen di ñu leen di kii rek ñu xam ne alcoolisme aussi feebar la dañ koy faj am na boo xam ne boo fa tolloo itam war ngaa mën a dem ñu ñu faj la raxas sa deret ba mu set et puis euh, voilà c'est toute une procédure à suivre c'est comme les mm-hmm. drogués rek parce que addiction la boo fasee ba addict à quelque chose bah tu dois pouvoir avoir les moyens de de pouvoir soigner ça quoi et mm-hmm. d'améliorer la situation ba du doxalal yow Badou lii rek nga mënu sa wax boobu ba tey Badou bëri nga kersa nag ah. kersa bee bëri kersa koy rek ñu dem. ci beneen euh, journal. Mhm. Euh, Walf euh, Quotidien candidat issu de Benno Bokk Yaakaar système en autodestruction maanaam candidat yi nga xamante ni si nii bokk fare nañ foofee ca Benno Bokk Yaakaar daal mel ni Benno Bokk Yaakaar jóg na ci tas ak yàqante ginnaaw bi nga xamante ni si moom Boun Abdallah Dionne Aly Ngouille Ndiaye ak ki nga xamante ni moom mooy Mame Boye Diao ak seen capitaine muy ma Amadou Ba ñoom daal déposé nañ seen ay candidature ba validé seen ay parrainage yu Hmm, d' accord ah macha allah. c' est hmm. eh bien ñu dem ci beneen. damaa sonn ci politique bi ban waaw hmm, euh, euh, mu nekk euh, réew mi quotidien wax ci contrôle des parrainages les sept charges dans les climat li nga xamante ni moom mooy collimateur de quarante et un candidats maanaam muy ñu wax ci li nga xamante ni si nii rek moom mooy plainte bi nga xamante ni si ñoom ñoo ñëwee ñu daal di rejeté woon amal nañ ko foofee ca conseil constitutionnel ñeel sept charges yooyee ok euh, source a daal di wax bataille judiciaire euh, en vue euh, li nga xamante ni si moom mooy avec la décision de l'État de faire reprendre les vols domestiques par Air Sénégal à partir de l'aéroport Léopold Sédar Senghor Dakar viole le protocole signé avec la li nga xamante ni si moom mooy décision bi ñu jëlaat rek muy Air Sénégal ñu daal leen di jëlaat ngir rek ñuy jëlaat seen ay vol foofee ci aéroport Léopold Sédar Senghor mel ni dafa jur ay coow. Hmm. d'accord mmh. ñu jàll ci beneen ñu jàll ci beneen. Euh, Sud Quotidien euh, organisation d'une élection présidentielle transparente et crédible défi d'un scrutin maanaam euh, li nga xamante ni si ni moom la ñuy xaar mu nekk ab défi boo xamante ni si war nañ ko relever maanaam organiser élection boo xamante ni si ni dafay transparente ba pare daal di crédible moom la ñuy xaar en février 2024. ah moom la ñu bëgg suñ ko mënee am. mais loolooy loolooy dëgg gis nga gis nga hmm. gis nga Badou. Mhm. maa ngi koy wax sànq jaara gis nga transparence bi fu mu nekk nii c'est la clé de la réussite de ces élections là mhm. on ne peut pas faire des élections yoo xamante ne nit ñi seen xel daloon dañuy am ay jiixi jaaxa xam nga li ma la wax mhm. maanaam ñuy def ba pare muy jur coow li nga xamante ne moom la jur ci parrainage bi te coow li jur ci parrainage bi mooy yóbbee coow également ci li nga xamante ne moom mooy euh, élection présidentielle bu ñu artuwul dès maintenant c'est c'est pour ça que d'ailleurs l'opposition devrait aurait dû exiger à ce que élection yi ñii mhm. bañ koo organiser ñu wut ministère boo xamante ne loolu rek moo koy liggéey ci koo xamante ne une personne neutre pour que mu mën a mhm. juger ces élections présidentielles là mais malheureusement mhm. c'est-à-dire que man comprendre uma li nga xam ne moo leen dal nii yëpp ñoom dañ ci am part de responsabilité bu mag a mag a mag a mag maintenant mm -hmm. il y a ce défi important à relever c'est de faire des élections présidentielles de des élections hyper transparentes yoo xamante ne du am jiixi jaaxa ci xelu nit ñi loolu rôle organisateur élection yi la rôle mhm. état et surtout responsabilité am la parce que ce sera en sa responsabilité la ñuy organiser élection yi mel rôle citoyen yi la également ñu taxaw ci élection yi war a mën a nekk ci élection condition yu baax ak ñi nga xamante ne ñoo ciy participer yëpp de près ou de loin mais la transparence est un élément primordial ci élection présidentielle yi ñu jëm. Mhm. Ah, ñu Euh, muy euh, témoin présidentiel 2024 la day wax ba léegi Macky Sonko Bougane mmh. doon une alliance de feu des euh, exclus li ñu doon wax sànq la rek maanaam kookee di Aminata Touré Ousmane Sonko ak Bougane Gueye ndax dañuy def alliance boo xamante ni si nii day nekk mooy regrouper les exclus maanaam li nga xamante ni si nii jëre nañ leen ci li nga xamante ni moom mooy élection yi en tout trio bu baax la de bu war a mën a jur dara waaye kaay kaay mmh. wax la nag yee li nag mooy nokkasu poobar gu saf gi nag ñett ñi <laughs> ñett ñi bu ñu booloo ne dañuy xeex moom wax dëgg yàlla xeex bi dana metti jaara dama la koy wax pënd bi dina jógee sax mhm. xeex bi day mhm. daal di jeex parce que c'est des frustrés yoo xamante ne dañoo amoon yaakaar ci dara dem nañu ba aujourd'hui seen yaakaar tas man je les comprends mhm. ñu ci beneen Euh, muy euh, tribune euh, c'est récalé moom li mu wax moom mooy Sonko Bougane Mimi Abdourahmane Diouf Decroix c'est récalé qui von élire le cinquième président lu sorewul ak li ñu wax sànq rek maanaam ñoom ñi nga xamante ni si nii récalé nañ leen ñoom daal ñoo nar a booloo daal di fal ki nga xamante ni si moom mooy le cinquième président du Sénégal. nañ ko jëfee rek nañ ko jëfee da mën naa ne. et sincèrement aussi. bu ñu ko jëfee daal gëm ko. te bañ a def ngistal rek ne. buñ ko gëmee mën naa ne xaw ma nag ñu ñàkk ko bañ a gëm tey def ngistal Euh, sunu làmb dafa daal di xëy wax ci Lamine Samba sur le titre de euh, roi des arènes je propose un tournoi de deux poules de euh, cinq VIP moom daal li mu wax ci mbirum roi des arènes boobee moom daal li mu ci xamle mooy nañu organiser li nga xamante ni moom mooy ab tournoi de deux poules de cinq VIP maanaam ñaari poules yoo xamante ni sii nii poule ba ca nekk dana am cinq VIP ngir njaal ñu daal di wax ci mbirum loolee nga xamante ni moom mooy roi des arènes. nañu bàyyi ba élection yi jàll ma ne ma ne wuyu fii ma ne xam nga ñi lu ma leen yëgal. nañu bàyyi ba ruwaale keneen jël ko ñu door a tournoi. nañu bàyyi yi jàll ñu nekkee rek doon nañu sëkk Mamy Samb. dañ koo talul benn beneen bi ci topp mooy dama ne. Mhm. xaw ma tournoi xaw ma open xaw ma lan dama ne nañu bàyyi ngaruwaa bii mu ngi ci bopp Modou Lo te jógee gu fi loolu leer na wala leeragul ba tey. ñu <laughs> bëgg a toog ba heure bii naan ay dañuy organiser tournoi des grands des des des roi des arènes gi ma ne lu tax ba mu nekkee ci bopp Yékini kenn waxuñu ko ba mu nekkee ci ah, bopp Balla Gaye waxuñu ko tey mu bëgg nekk suñu bopp bopp Modou Lo gi ñu bëgg cee laa far kay jaara yow <laughs> tournoi wu ñu wax nga ndekete Modou bëgg roi bi des ci boppam d'accord ah, waaw waaw ku nekk fi nga far kay man Modou xanaa loolaa far loolu koy nag loolu internet yeeg loolu Sénégal ak ñun xam nañ ko moom tamit il paraît que loolu ci moom la daal di jógee. Hmm. bu ko neexee pause xaw naa rey waa Pikine avancé avancé avancé. start euh, euh, moom daal li mu xamle euh, pourquoi le Sénégal doit compter sur Aliou Cissé. entraîneur d'expérience sur les pas de euh, li nga xamante ni si ni moom mooy euh, Cheikh Abayla et euh, ki nga xamante ni 18 matchs de CAN la daal di def 12 succès 3 nuls et 3 défaites moom daal nee na nañu daal di compter ci ki nga xamante ni si ni moom mooy Aliou Cissé ngir rek moom mooy CAN bi ñu daal di dëgmal. Hmm. mami ndax mën nañoo compter ci Aliou Cissé. c'est vrai que. Aliou waaw daanaan la de indiloon indiloon nañu coupe. indiloon nañu coupe mën nañoo indilaatal coupe de il suffit qu'on lui fasse confiance mais mhm. moom aussi il suffit aussi qu'il fasse les bons choix stratégiques mhm. par rapport ak système de jeu yi muy teg mettre les bons joueurs et surtout mettre en confiance ses joueurs wax leen ne vous parce que xam nga nit moom am na fu muy toll moom wax dëgg yàlla ci biir équipe yow yaa koy galvaniser yaa koy galvaniser gësam ko ne ba dara taxawal waaw fi ngay gérer revue de bi fii baax na yaa ma ko gën a hmm. boo fi nekkul affaire yi du baax du ciil xam nga ne jaaro ko jaara fi nga toog ni baax na galvaniser waaye léeg-léeg nga mel ni rek ah, Aliou Cissé daal Aliou Cissé <laughs> wax moom fay nañ ko xaalis bi ñu ko amee la nañ ko ameloon xaalis xaw ma nag fay nañ ko comme <laughs> ah, ba nga waaw waaw nañ ko nañ ko fay xam nga loolu day tax entraîneur day naqari deret a sait jamais. Ah, à ah, tout moment mën naa mettre ci mm-hmm, ko mm-hmm. fay balaa moo dem. waa kay te Aliou nag ndaanaan la nag man c'est un entraîneur c'est un coach que j'aime bien vraiment sincèrement mm-hmm. et j'espère que aura bi nga xamante ne amoon na ko ba ñu gagné coupe ba aura dina ko accompagner waat ci coupe d'Afrique des des nations bu ñu dem ci beneen wala jeex na. Ah, jaa ngeen jëf. Euh, ñun journaux yi ñu ngi leen di jëfal bu baax a baax euh, euh, Badou ñu ngi lay jaajëfal yow it mu suba jàmm incha allah. Badou eh, merci beaucoup bu baax amoon mbégte bokk yow plateau bi tamit mami. di leen wax di mhm. daje ba léegi incha allah. incha allah am nañu am nañu amati nañ mbégte sax. ñu ngi lay jëfal bu baax a baax waa ani na bu xanaa day nelaw. na bu bopp bi dafay métti yow na bu bopp bee toj bopp bi day métti fu nekk nii. moo tax hmm. internet yi gisuñu ko. waaw mais yóbbanti woon na ma yóbbanti woon na ma yóbbanti woon na ma ay putu putu pour yéen putu putu pour yow putu putu pour Alioune Badara putu putu pour équipe technique bi yëpp ak jëkkëram jooju fa nekk foofu ndaw fa xa faxa ma nga fa. ma nga fa di di jaxasee fa pétale yi rek fu ne mu bës. waaw nee ko nee ko jamono ji mu ko yónnee. nga yónnee ay putu putu ñoom seen sëy bi ah yàlla baax na da ci des yàlla na barkeel lu dëgg. ak ñu gërëm nag ñu gërëm la bu baax. Mm -hmm. C'était un plaisir de faire cette émission avec toi. Hein? Yeah, maa yeah. jaariyaatu d'amour. donc euh, yal na yàlla sàmm la yow it. la ba nga yëg ko ci barke Seydina Mohamed. di remercier ah, équipe technique bi. Mmh. Mbaye Anta le meilleur réalisateur du monde ndax réaliser ku mel ni man rek moo gën a jafe ci àdduna man émission damay ñuul ñuul te mënumaa toog benn place. Mmh. man munu man maa ci raw man man man damay ñuul ñuul rek damay Anta daf may waaw jaajëf euh, Mamy Samb ba suba ak jàmm incha allah. merci beaucoup. Allez, merci beaucoup bonne journée. Euh, ma daal di jaajëfal internet yi nga xamante ni ñoom tamit euh, depuis boobu léegi ñu ngi ñu ngi ànd ak ñun voilà Marie Amar ñu ngi lay nuyu ñu ngi nuyu Yacine Nes Dia ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax Moussa Lamy gisatuma ko fenn namm nañu ko ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax di nuyu voilà su ma limee damay juum nuyu naa Mamadou Fofana. nuyu naa ñëpp Sophie Nabi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax euh, damay jël nuyoo rek teg ko ci loxo Inès Dia su ko defee mu leen ma ko nuyul ma ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ni lay demee su nekk fii ci 2A TV woy leen dañu topp ci euh, 2A TV ngeen di abonné di bës cloche de notification bi su ko defee ngeen di mën a am suñuy vidéo ci daar daar gi di leen ñaanal jàmm tey di ko sàkku ci